yëf yëf yi mu xewee amul dara luy firndeel ni faat nañ fi bakkan gannax gi raatale na lépp Baye Cheikh Diop fii la ñu faatee bakkanam si buntu këram si loxoy waajuram bu góor la nooyee nooyeem bu mujj. laa toll nii ci buntu néeg bi gis ko mu tëdd fële ci tefes quoi di sañe deret ji bari lool ma ne xaaral ma daw dimbali ji jëmm ji tëdd nii bu ma ñëwee ba tiim ko noonu bon ci laa xam ne kii nii sama doom moo tëdd quoi. yëf yi metti gox bi yëpp. Baye Cheikh mool la woon ni ki ki ko faat moom sax muccul si lu ni mel ndax waa dëkk bi ñoo ko dóor ba mu ñàkk ba kanam chef de ci gox bi xaw tuut moom it mu des si mbir mi. bi ma dawee dem foofu fekk ñu dugal ko ci benn néeg yeew ko ma ñëw dugg ci biir néeg bi ak ful bi nag dëkk bi yëpp daw. foofu ma nekk nag di défendre di défendre di défendre ba ci yàgg rek ñu jël benn bidon essence rek sotti ñu ko maag xale bi nekkoon ci biir. sama benn xale daw tëq sa sama loxo rek na ma génnal dañ kenn xamul nag lan moo waral mbir mi mu jëy si musiba gu am dayo gi fii si quai de pêche bu Thiaroye sur fii ne fi la coow li tàmbalee ay gendarme ñu ngi fi démb ba tey nanguwuñu benn taskatu xibaar dugg si bile bërëb kee bi li muy rëy rëy amul benn doomu aadama bu mën a wax kii faat bay Cheikh nu mu tudd ak fa la cosaanoo doxa doxandéem la woon bu yàggul dara fii si Thiaroye sur ki ko rey dafa yoroon siiréem di dem dugg si gaal gi googu nag ba waa gaal lompul la ba ma laajee ñoom fan la dëkk nee nañu bawal bawal bawal la dëkk loolu daal lañ si am mais en toute sincérité man xaw ma ko xaw ma si moom dara. police ubbi na l'enquête ngir xam rek si yan anam la ñu faatee Baye Cheikh Diop lii leer daal ba leer mooy enquête bi du yomb ndax ñi waroon a nettali ñoom ñaar ñëpp wuy ji nañ seen borom.